jalilaay maskani Tuuba bu ngeen gisee sunu jataay bii nag tey danoo ñëwoon seet si sunu kilifa sunu wëllëre muy sëriñ Xaafiyatu Buso mu feggoog sëriñ Murtala mi nga xam ne moo jiite commission sociale Touba ci kanam ci njiital sëriñ Habibu mi nga xam ne moo jiite tuubaa ci kanam nu ñëwoon rek ngir seet ci sëriñ Xaafe ngir mu sànni ay kàddu ci liggéey Touba ci kanam boobu yi nga xam ne euh, murid yëpp yaakaar naa yëg nañ ko ndax doxin wi moom fii ne leer na te tegu na ci aw yoon nu ñëwoon ngir mu sànni ci kàddu yoo xam ne rek euh, nu barkeeloo ko ngir murid yi nga xam ne dañoo ne fu sori te buñ séenee jëmmam dana fi wuutu mbooleem koo xam ne daa ci jumaa ji rek di fi liggéeyal sëriñ Touba. kon bisimilah sëriñ Xaafe aoudubillahi min sheytaan rajim bismillahi di jot la suñuy cant ak suñuy ngërëm ak rafetlu seen taxawaay ak seen gis-gis muy jëmmi Tuubaa ca kanam ak social bi nga xam ne moo mm, làng moom mm-hmm. ñu bokk ñuy jëf ngir jëmi Serigne Touba di njëkk rafet lu bu wax xalaat bi ndax xalaat la boo xam ne pësteef moo ko lal ndax jëf yi moo ko feeñal ndax ku ne xam ne ne bi mu juddoo ak léegi ay jëfum reen rëy goo xam ne ana mbooloo yoo xam ne maga ko ay fanweeri at wala lu ko ëpp mm-hmm. te ba léegi te guñ bët ci loo xam ne defañ nañ ko ñu mën a wax muy teg kon seen dëggu ak seenu laxaay fa seen liggéey sëriñ bi ba ci loolu man mii di wax ak ñi mel ni man am na ci ay firnde yu bari ndax loolu loolee ngeen yëngu dafay agsi ba ci noonu xaar gu ngeen xalaat ne eh, ñi ñu war a jàppal lañ ci ba li ñu liggéey rafet muy man ak ñi ma tane aslëf ba tax na lépp nga mën ci jàppal leen ci ndibal ak ci wat ak wat gu man di doon yéen a ngi ca tamit ak si noonu itam te ni ko yëg bu baax a baax a baax muy lu nu amal njaay ñi tam kon ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax te di leen gërëm ndax liggéey bi laa ko mën na lool rek moo fi des ndax dafa am ñoo xam am taxawaay yu ñu amee taxawaay yooyu muyu leen mm-hmm. donte seen seen jikko la sax mm-hmm. seen jukka la woon joo xam ne daal nañ ko def waaye bañ nekk ci taxawaay mayeetu leen nag da ko mayewul mm-hmm. rawate nag ñi ëpp ci ñoom ñoo xam ne loolu mu nekk sax seen melokaan mm-hmm. nga xam ne seen i itte ak lépp dañ koy tefee bàyyi ko sëriñ bi rek muy rox noonu mm-hmm. te am ñu fa seen di xee ci ndigal di ci gont loolu tam lan nan yàlla nag te jàpp ne lépp loo xam ne rek war na agsi incha allahu dana agsi kon nag bi amee xalaatu ne am na ñu mel noonu te ñooñu am na lu leen warte loo xam ne duñ ko gis kenn ku dul sëriñ bi mhm. tax ngeen jóg ci teg seen tax ngeen jóg teg seen tànk ci ñooñee mhm. loolu ñuy yëg te ñoom dong ñu ko yëg ngeen fexe ba ko yëgandoo ak ñoom mhm. la ca wax ni dimal ngeen di ko def loolu xalaat bu rafet rafet la xalaat bu rëy la boo xam ne xëy na fay gu leen sëriñ bi nanga nam ma fay moo tax mu liggéeyoo leen ko ndax xalaat la boo xam ne ñu bari seen xalaat àggul foofu dafa mel ni dañuy barab bopp moom dafa mel ni xalaat yu bari dañ koy jël. ba tax na te ba dee set day mel ni mm-hmm. borom ci jëm moo nugul moo nugul yu bari jëm fa. Mm-hmm. da nga dëgg yëngu yu bëree baree bëri mm-hmm. ñuy dépassé yu bëree bëri waaye doo gis ñu jëm foofa. moo mel ni kon borom itam dafa eh, day segg la fay jëm. ba tax na kon lu fay jëmlu rek rek noonu dañ ci rafet njort ci ne lii borom moo nag mu borom moo nag mu dugg fi. moo tax bu ñu koy jëfandikoo dañ ci ànd xel mu dal. donte lu ñu bari ay wattandiku ci yoo xam ne alal yoo xam ne da lay ñëw sax waaye suba du tax ñeme koo jëfandikoo waaye lii moom bu ñëwee suñu xol na dal day dal day dal lool jëfandikoo xam suñu mbokki la jógee yoo xam ne yéen ju rafet bi dañuy a doy ci ku am ab jal ko jale indi ko fa lii dañuy xam ne ci suñu mbokki taal ba la jógee waaye ki am jal kese rek indi fa te xamuñ fu fu mu jale ab jalam nii ma duñ ko jëfandikoo mm-hmm. waaye suñu xel dañ ca daal di lool ba daanaka rek lu ci ëpp duñ ko jëfandikoo mm-hmm. kon nag ñuy xamal mbokki taalibe yëpp ne mm-hmm. loolu daal lu ñu rafetlu la lu nu su lu suñu xel dal la lu ñuy jëfandikoo la itam nga xam ne yéen yu sell ji mu jóge te mooy fas yéene liggéey sëriñ bi bokkook bokkook ñun ñuy sell ñëpp itam ne lépp loo xam ne dugal nañ ko jëmi agsi ci noonu na mu ci war a agsi mhm. ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen bàyyi sëriñ bi nga xam ni mhm. moo tax ngeen di ko jëf te moom ku ñu jëf loo ku nekk mhm. ba fay nga xam ni gor la te am na fay kon ñu ngi leen di bàyyi sëriñ bi di leen kon nag noo ngi soññ sunu bokki taalibe yi nga xam ne dañoo yàlla da leen dimbali may leen taw tawféex ñu am yéenay liggéeyal sëriñ tubaa ab liggéey daal la ngi nii boo xam ne képp ku ci def sew ñaq waat nan wér nanu ne sëriñ ci loxob sëriñ Tuubaa nga ko teg kon nag noo ngi soññ suñ bokki donga yi di soññ bokki taalibe yépp yi nga xam ne dañoo bokk ci Tuubaa ci kanam baa ñu bëgg cee bokk rawatina nag commission sociale bi nga xam ne ci biir Tuubaa ci kanam la bokk te sëriñ Murtada mi jiite ko kon bokk yi kaddu yooyu daal la sëriñ Xaafi yëkkati te muy kaddu yu sell yu matale yu jotale ci turu mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ko séqal te wax ko ci biir wax ji muy ñi nga xam ne mooy sëriñ Maamun ñoom ak sëriñ baare ñi nga xam ne ñoom la séqal liggéey boobu ak mbooleem ku nekk ci biir jumaa ji wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nafsi wa diini sumaali wal walaat فمسكن لك وديعة نبات وكفى دنياي ما أخرايا ففيهما أن يذري في الرزايا واضرب سبع ناري عن جملة من بأتى لخو من أبناء زمن وجملة إخواني من أقاربي في التين أو في ديني ولا جانبي اباد مثل اسمها بجاي خير من اباد